nàmp ci alquran ñi far ñi feralee la alquran nga dund ci alquran dundal alquran dundal sa njaboot ci alquran dee ci alquran ñi dee ci la del alquran tey jàng la alquran yow rek yow kon am na ci yaakaar bu baax ne alquran dana ko jëriñ man dama li ñu koy jàngal sax la waaye koo xam ne moom téere ñoo saxoo woon suba ak ngoon guddi ak bëccëg kooku buñ lay jàngal alquran dañuy dabaatal rek da doon ca la defoon yàlla problème jëfoon ko jëfoon alquranu ndax ñi ngi woote ñeneen ñoo xamante ne nii tollu kii ci we ci ñu ngi koy toxoote ay bis dego woote hotel ay guddi kon woote bi hëpp naa ñàkkaa def moom li ci am solo nañ ko def ngir jëmm yàlla yaakaar naa ko bu ko defee jàng nañ juróom-ñaari kaamil alquran am na mu ni sama maam alaaji Omar Sakho mu ngi fi ba moomin daraame mu ngi fi ak gan fi teew yëpp ak oustaz Mahmoud Darame ak mbokk mi Modou Ndiaye ak ñi nga xamante ne nii ñooy ay doomam ak sëtam ay baatam ñoo teew ak maam tamee ca gannaaw waram jàll defet wee ca gannaaw moom ñu ngi koy jaaral di ko nuyu bu ko defee li ñuy njëkk def mooy dañuy jox ña jaay al oustaz Muntaxa Saaxo mu tëj kaamil bi buñ ci noppee ñu jox al ustaas Mahmoud Daraame mu yëkkati ay kàddum dénk ñi ñaax ñi ñaanal ñi buñ noppee ñu jox suñ ñaari mag yi képp koo xam ne xam nga ci kàddu nga yëkkati ci kàddu buñ noppee ñu dugg nag ah daa noppalu ji ba cinq heures génn bu ñu génnee am na al ustaas Mouhamadul Muntaxa Sakho dana ko waxtaan bu ca noppee ñu defal ñu defal ko wasifa buñ noppee ñu ñaanal ko ñaanalante ba déwén yàlla nañ ko yàgg fekkee yàlla nañ ci yokkoo ba faw ci buñ ci ñàkk buñ ci wàññeekoo yàlla nañ ci deferoo ba faw ci buñ ci yàqoo tey nag manaa naa koo xam ne dañ la daan waxloo ña lay wax loo la tax ña lay wax loo newuñ fa ca lañ lay wax loo ñoo la ko gën a xam dàq la koy wax buñ teewee mënoo jox leen sa noppi garmi de déglu asalaamaaleykum wa waxit yi mbooloo mi mooy jàng waaye lu jiitu bés bi sàkku woon nañ ci njabootu boppam gi ku nekk lum tuuti tuuti mu jàngal ko benn kaamil ah yow defoon nga waaw sëñ bi nee moom it jàngaloon na ko kaamil njaboot yi ñu bëri wax nañ ne eh, defal nañ ko seeni kaamilu bopp moo xam ñi fi nekk la ak ñi fi néewut maa ngi am sama mbokk yu baax yoo xam ne ñu ci New York ak yenn état ñoo xam ne ñoom it def nañ seen kaamil ngir góor gi ah macha allah xanca maram ah macha allah macha allah nee na Adja Sakho doom añca di doom ci góor gi tamit doom góor gi ak soxnaam yaay def na ñett yi suñ mag di doom ci góor gi def na ñett moom it waaw soxna moom def na ñaar macha allah ajaam ganaar yi dafa mel ni góor radiyallahu anhu di doomi njéemé Ousseynou ah ana ana ana njéemé di suñ jarbaat maa ko bàyyi ci taw yóbba mu koy jàngal kaamil foofu am na tamit soxna yu baax yu ma yónnee message ci suba gi ne ma ñoom it defal nañ ko ay kaamil te ñoom ñu ngi ci suñu programme suñu institut en ligne bi sama beneen doom Lamine Dramé bu wax ne ma wax la Bachir ne la kaaraan pare na du dëgg kon xëy na yiñ ma takk yi xamut ñoo ko gën a bari ndax bi ñu waxtaanee ci groupe bi ba noppi dañoo lancé woon message ñu bari jël nañu engagement ni ko Oustaz waxee rek koo xam ne moom léppam alxuraan la dimanche bi ñu fiy jógee mooy dimanche bi nga xam ne ñun ñëpp ñu daan daje di wàccee kaamil balaa ñoo kaamil bi ñu mujjee wàccee ci dugam bi ñu wàccee di ko ko informé ci la municipal temps bu tuuti la fa nekk tàqo tàqalikook ñun euh, lu kon alquran doon dox alhamdulilah ñu am yaakaar ne alquran ñu jàng barke bi dana ko fekk fa mu nekk làmb ko moom yëpp ci ay ak i mbokkam ak soxnaam fa neel ak i njabootam yi nga xam ne jiitu nañu ak bépp jullit yàlla na yàlla loolu yaara bi ci ustaas waxee waxtaan suñu mag la waaye suñu sëriñ la ñaari mahmoud la sax Mouhamad Dramé ak Mahmoud Dramé ñoom ñaar ñëpp jàngal nañu kon buñ fi ne ñu waruñoo yëkkati sax kàddu ak ñu def xatmu bi rek xëy na ñoom ñoo ko waroon a def sax comme am nañu góor gi ñu war ci xatmu bi xëy na looloo ñu koy def waaye ñoom ñoo waroon a ndax ñooñu gën a baax ñu gën a mën a jàng lépp it ñu koy def ci ndigalu suñu wayjur wi di Baalaji Omar Sakho nga xam ne amuñu ku ko fi ëpp ak suñu bàjjan bàjjan at góor gee bokk baay waaye ñoo góor gee bokk bët yi ñu góor gi daan xool bët yooyu lañ ñuy xool xëy na bu fekkee lu am na ci waroon def nañ ko ba lu ko romb yal na yàlla gën leen fee yàggal suñuy mag yi fi teew ñoom soxna Fatma bële soxna ma euh, toujours damay nettali kilifteef ci moom am na loo xam ne sax duñ dugg ci détails yi waaye ni mu nangulee woon góor gi néew na ku ko nangule njaboot ku njaboot gu ko nangulee kilifa bi muy ñëw fii Dakar góor gi ko fii ba mu yeggee daf ne ko mu dama naa la dama la bëgg may borom kër xam ne amul xaalis rafetut te mag la waaye taalibe la nag te it fas ma la fee bàyyi la def la muy def ba pare ànd ak moom indi ko fii ci kër gi yóbbu ci kër bàyyi laa ji kebaat mu jëfa ndigal ba ñu fa demaan bàyyi laa ji kebaat wax ne ah de moom waaw daf ko daan moom bu fi teer mooy kilifa jotaay bi jigéen ñi moom rakkam yi bokkal ñoom soxna Mambu Saak ñoom soxna Thiam nag ñi ci topp moom Adja Ngenaar ak ñëpp rek Adja Ngenaar nag ñu law bi <laughs> ah <laughs> alhamdulilah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 alladina yuminuuna bilxaybi wa yuqimuuna alsalaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun walladina yuminuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wa bilaaxirati hum yuqinuun ulaa'ika alaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika humul muflixuun jacalani allahu wa iyaakum min almuflixin bismillahi arrahmani arrahim qul huwa allahu ahadun illahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi arrahmani arrahim qul acuudu birabbil falaq min sharri ma xalaq wa min sharri gaasiqin idaa waqab wa min sharri naffaathaati fil cuqad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 alxaaliqu albaariu almusawiru algafaaru alqahaaru alwahaabu alrazaqu alfattaax alcalimu alqaabidu albasitu alxaafidu alraaficu almucizu almudil alsamicu albasiru alxakamu alcadl allatifu alxabiru alxalimu alcazim algafuuru alshakuru alcaliyu alkabir alxafidu almuqitu alxasibu aljalil alkarimu alraqibu almujibu alwaasicu alxakimu alwaduud almajidu albaaxisu alshahidu alxaqu alwakiil alqawiyu almatin alwaliyu alxamid almuxsi almubdiu almuciidu almuxyi almumiitu alxayu alqayuum alwaajidu almaajidu alwaaxidu alsamad alqaadiru almuqtadiru almuqaddimu almuaxir الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الملك الملك ذو الجلال والإكرام الممسك الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث النور هو الحي لا إله إلا هو ادعوه مخلص له الدين الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن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 warzuqnaa jiwaara sayidina muhammadin alayhi salaatu wassalaam akrimnaa biliqaaika ya diyaan istajib ducaa'anaa bixaqi altawraati walinjili walzabuuri walfurqaan actinaa jamiica maa sa'alnaaka bihi fi sirri waliclaan وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن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 وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا wa baynana wa bayna annaari sitran wa xijaaba wa ila alxayraati kulliha dalila wa imaman biadlika wa juudika wa karamika ya akmal akramin allahumma ahdina bihidayati wa aafina bicinayati alquran wa najjina min anniirani bikaramati alquran wa adxilna aljannata bishafaacati alquran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 وبعين القرآن علما وبغين القرآن غنى وبفاء القرآن فلاحا وبقباء القرآن بركة وبقاف القرآن قربة وبقاف القرآن قربة وبكاف القرآن كفاية وبلام القرآن لطفا وبميم القرآن موعظة وبنون القرآن نورا بواو القرآن وصلة وبهاء القرآن هداية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 sallallahu alayhi wa sallam wa ila arwaahi ashaabihi ridwaanullahi tabaaraka wa ta'aala alayhim ajma'iin wa ila arwaahi jamii'il anbiyaa'i wal awliyaa'i wal mursaliin allahumma balligh sawaaba maa qara'naahu wa barakata maa talawnaahu waj'alhu hadiyatan xaalisatan li wajhika maqbuulatan muttasilatan mahdiyatan li ruuhi sayyidinaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa li arwaahi ashaabihi ridwaanullahi tabaaraka wa taala alayhim ajmaciin wa li arwaahi jamiici al-anbiyaa'i wal awliyaa'i wal mursaliin allahumma balligh sawaaba maa qara'naa wa barakata wa nuura maa talawnaa li ruuxi waalidinaa alxaaji Cali Sakho wa li ruuxi waalidatihi soxna Bousso Ndaw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 li ruuxi abdika alxaaji aliyin saaxo allahuma axfir lahu warxamh waafu anhu wa aafih wa akrim nuzulah wa wassi madxalah waxsilhu bimaa'in wa saljin wa barad wa naqihi min alzunubi walxataaya kama yunaqa thawbu labyadu min addanas allahuma aafihi min fitnati alqabri wa min cadaabi jahannam allahumma inna la nacrifu illa lixsaana minhu fasil ixsaana wa kullu ma waqaca minhu min isaatin fatajaawaz canhu allahumma innahu qad nazala bik wa anta xayru manzuul faqiirun ila raxmatik wa anta ganiyun an cadaabih allahumma adxilhu jannataka alfirdaws alaclaa bila saabiqi ciqaabin wala xisaabin wala mashaqqa وارزقه مجاورة مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومعه كريمته حاج مريم درامي ومعه أبواه حاج بوسنة والحاج وجرج جن فاطمة ومعه أخوه الحاج مودو بوسة ومعه جميع إخوته وأخواته وجميع أعوانه وجميع أعمامه وعماته وجميع أخواله وخالاته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 الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد وتهب بها بمحل الفضل والمن والوداد ما الإفراد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات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 wa tuxliqu anna biha abwaab alfitnati walfaqri waljahli walkadibi wannamimati walkibr walujbi walriyaai walsumcati walxasad walbugdi walbuxli waljubni walfaqri waltacsir وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير إن الله وملائكته يصلون على النبي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 jox ustaas rek sànni ci kàddu yi muy sànni te defee wam ni ko ustaas daal la waxee eh, suñu baay kàddu te mu waxee defee noonu naa ñu wax mbokk yi ne gannaaw tàkkusaan mooy gën a feex ñi nga xam ne ñu bëgg waxtaan ñu waxtaan gannaaw bu ñu defee wazifa wala njëkk ñuy def wazifa da ko waxtu yu àtte rek ñu gërëm tamit waa Ayn Maadi Xiifi nga xam ne waa kër Xaaji eh, Abdul Aziz Dabaax lañ nekk fële ca Mbuur ñëw ak tamit waa Seneweb eh, di gërëm ci seen teewaay ñu fi teew yëpp wante tey moom ku fi teew rek alxuraan nga teewal te alxuraan moom mën na bësam nañ yàlla may yàlla yaa rabbi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu lislaam bi gën a màgg ci nuyoo yi yi asalaamualeykum wa rahmatullah ngi am xel mu dal di am mbégte lool ci daje bi yàlla eh, di waxee nag kàddu yoo xam ne kàddu sunu mag la sunu xalifa alxaaji ahmad Darame ci kër Sambara e, ma wuutu ko fi man ak sunu rak Cheikh Darame moo ma xamal ne Cheikh fala fajaroo jëm si fii ci ñaan bi ne ma soo demee sama kàddu jox naa la lépp kon lu ñu fi wax rekk kàddu la bis bi ku ne xam na ne Eh, daan na ko ci yu bari daan na fi ñëw di ko teewee di bokk ci ñi koy taxawee waaye mu wax ne ren daa xaw a jattu bëggoon na ko lool lool waaye jamono moo ko ko mayut te yaakaar na ne su ko waxee di ngeen ko dégg di ngeen ko nangu te mu ngi ñaan ngeen nangul ko ko xat-xat la ñëwee trop fekkuma ko sax ci kër gi yu ñu jokkoo boobu mu nga kër ma jabel mu ne ma nag seex ma nga fa incha allah da ngeen fa fekkante kon alhamdulilah bi ma ñëwee ba fekk ko fi e, ñu am mbégte comme ni ma ko waxee waaye di nuyu ñëpp mu taxa yaag say mag say rak yéen ñëpp Cherif ñu ngi leen di nuyu. nuyoo boo xam ne ci waajur yi ci kër gi fa lay soqeekoo ni ko waxee sëñ Muntaxa yaay Awa yaay Ayda kenn ku nekk ak njabootam ñu ngi lay nuyu di nuyu soxna Maam Busa mi nga xam ne moo yëkkati téléphone ooma yëgal ma bis bi wutu leen ci ñëpp ak ay rakkam yëpp can saaxoog Aminata ak yéen ñëpp daal ñu ngi leen di nuyu di nuyu kilifa yi ñu fi fekk Serigne Jim Cissé xam ne seen dëkkandoo la di seen mbokk Serigne du njaay ba tey di dëkkandoo di mbokk di nuyu sunu wëlëre sunu xarit bu yàgg alxaaji Cissé yàlla dogal ma fekk ko ci jotaay bi te du doon lu ma doon bàyyi xel ndax maa ngi defoon ne rek ma nga ci réew ma ndeke danaa ko fi gis kon alhamdulilahi rabbil alamin di nuyu sunu baay sunu nijaay Serigne Omar Sakho. waaw ñépp rek ñi ci jotaay bi kii fay njaboot gi maa ngi leen di nuyu nuyub lislaam boobu eh, ni ma ko waxee lii dal na xel lii dal na xel ku mu dalul xelam xaw ma ci lan la sa xel di dale lii mooy azaaru mag ñu baax ñi eh, inna azaarana tadullu alayna fanzuru baadana ila al azari bu ngeen bëggee xam sa eh, kilifa gi nan la meloon xool leen ci jeexit yi mu fi bàyyi ku fi bàyyi eh, sang yu mel nii walaay sa àdduna caaxaane ko woon caaxaane woo ko woon nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla gannaaw bu mu gëstoo boromam ba xam mooy kan mu xam fam war a féetee ci moom teg fa tànkam ne njaboot gi ñépp ñëw leen e, wañ loxo yi yëpp ñëpp ànd ak moom ba miin lim xam lim nekkoon kenn dootul dellu gannaaw mu soog a dëddu bàyyi leen xelam war na daal wax dëgg yàlla mun eh, eh, eh, muntaxa jërëjëf xat mu bii nga jàng mat na jot na rafet na dara sikku ci laa ayba fiiha li ñuy ñaan mooy yal na ko yàlla nangu te am nañ yaakaar ji jàng nga xel mu dal ak dal gu wér ak settantal gu am solo bam noppi ñëpp teewlu ko am naa yaakaar ne dëppoo naag aminu malaaka am naa yaakaar ne sama borom nangu na ko yal na ko yàlla nangu te gërëm ko tam sax te yàlla gën laa dëgëral yokk sa xam-xam yokk sa liimaan yokk sa pas pas-pas euh, da ngeen tàmbali waaru woo xam ne nag soreegu leen ci tey jii kenn ku nekk ci ñi nga xam ne xamoon nañ góor gi ca lañ ko xamoon mel na ni yéen da ngeen tàmbali yal na ngeen àggal ndax moom nu ngeen mën a mel rekk moom moo ko def ci yéen te yéen defagu leen dara ci seen njaboot naa mel na ni yéen a ngi góorlu mooy la bàyyi ñas waxoon taali taalibe ya dafa dégg ku naan Baye mii mu ëpp xam-xam baayam moo ko ëpp xam-xam mu toq ci noppam moo ko ëpp wilaaya Baye li mu xam kii fii bàyyi dégg leen ne leen yéen lu ngeen a wax maa ngi leen dégg di sama baay ngeen may tëkkalit xaar leen ba ma am ku mel ni man waaw xaar ba ma am ku mel ni doom ji sama baay am baay baay bàyyi du moroom waaw parce que liggéey loo gis ci doom rek bàyyi ca góorgóorlu xaadima jaxate kala dafa defar benn xasida réew mi yëpp xam nañ ko kilifa la woon jàngal na sax sëñ Tuuba sëriñ Tuuba kilifa la mu def benn xasida mu rafet lool doom ja tée xasida bi di ko jàng ba àgg ci benn bayti ne ko bayti bii de chatre bii de boo defoon nii def nii boo waxee woon nii day gën a rafet xaadi boroom xam-xam lu mu xool bayti bi xoolaat ko xam ne li xale bi wax dëgg la mu ne ko xam nga lu ko waral mu ne ko ah mu ne sa baay daa amutoon baay bu mel ni sa baay seetlu nga sa baay daa amutoon baay bu mel ni sa baay loolu moo ko waral xale bi na ko dëgg la moo tax mag ñi kenn du ñoom ñu bàyyi xel na nag ñoom ñi fi newoon te yàlla baaxee leen yàlla du leen fi jëlee rekk mu jeex tàkk rek ñu yem ci noonu déet fokk mu am albadal foog mu am ñu fi ne doo leen xam nag illaa qalilan waaye am na ñu baax ñu fi ne ci njaboot gi ci ñeneen ci ñeneen yàlla moo mel noonu benn mag mu baax mu ngi may nettali Mouhamadou Lamine Darame euh, ci xandulaay nga xam ne saalum saalum la waaye foofu la ko yàlla samp mu nekkoon mag mu féete woon mag ñoom ma alaaji Malick Serigne Touba alaaji Abdoulaye Niass ñoom ñëpp moo leen féetoon mag te yàlla joxoon ko wilaaya goo xam ne ñoom ñëpp dañ ko xamoon daan ko seeti mu am bis ñu dajee fa julli jot mu ne alaaji Abdoulaye noddal alaaji Abdoulaye Niass nodd mu ne alaaji Malick iqaamal mu iqaam déedéet waaw mu ne alaaji Malick iqaamal mu iqaam mu ne alaaji Abdoulaye Cissé borom jaamal demal ñu julli mu jiite julli ba julli gi mu noppi mu ne Sëriñ Tuubaa yow ñaanal am ku ñëw ne ko li nga def lu tax nga def ko mu ne alaaji Abdoulaye Niass li tax ma ne ko noddal bépp niiw bu nekk ci suuf dégg baatu noddam yàlla jéggal la dootu la mbugal alaaji Malick li tax ma ne ko iqaamal kàdduk iqaamam bu xasee jib ba baa mooy daaneel xëlimba gi bind bàkkaar dañ koy téye dootul bind ci réew mi ci biti réew mi fu ne bu xasee di iqaam fekk mooy daaneel kenn dootu bind benn bàkkaar moo tax ma ne ko bind iqaamal borom jaamal na kum jiite nga julli ci gannaawam sa yaram xaraam safara moo tax ma ne ko demal jiite sëriñ tuubaa nag yàlla dafa yàkkantee nangu ñaanam moo tax ma ne ko nangu ñaanal moom buy ñaan rek yàlla nangu mag ñoo ñu nekkoon fi nag bul yaakaar ne yàlla jëlee ni fi mu jeex takk takk takk takk am na jeexit yaa ngi fi moo tax li am solo mooy góorgóorlu jéem a teg tànk fañ ne fañ tegoon seen tànk bu ñu tegee suñ tànk fañ tegoon seen tànk rek la yàlla mosaloon mu mosal ñu ci te na xam te na bari ci ay gox yu bari bu ko defee ñu bokk di ñaan jàmm ci réew mi di bokk di ñaan jàmm ci réew mi di bokk di ñaan jàmm ci réew ndax seen ñaan moo ñu fi bàyyi ñoom kon ku am ku mel ni Alaaji Aliou Saaxo nekkoon fii ci kër gi ci parcelle gi daan fi jaamu yàlla jaamu yàlla yu wóor ñëpp jaamu yàlla yu sell nit ñu sell yi jaamu yàlla yu baax yi nit yàlla yi di ko fi daan fekk te boo ñëwee doo yàkkantee dem soo masee doxantu ba fekk ko sàndaga buntu màngaseem dangay fekk mu téye alxuraan wala mu téye kurus bañ ba ngay njëkk a séen ah, boo ñëwee bu ñëwee ci kër gi du nelaw mu ngi ci jaamu yàlla lu sell loolu mu nekke ko fi te du ci boole wax nekke ko fi ba xëy dem xam ngeen ne yàlla bu la liggéeyloo dafa fekk mu bëgg laa fay moo tax ñaan gi baax na de waaye tekkiwul ne ku fi bàyyi koo ak noo mën tollu jarulaañ akay ah ñaan dafa baax kaamil yi baax na wirdi yi baax na yaasin yi baax na lixlaas yi baax na ndax martaba la foofu ay maratib la ku ne xam na ne fii da nga daje ku la mën nga am martaba bu kawe nga daje ku ëpp martaba ko daje ku ko ëpp martaba fële nag la la gën a fesee nag waaw ñaan yi lay ñaanal dalay yokkal ay maratib yu mag yu kawe yoo xam ne ñaan gi moo la ko jotti rawatina ñaan goo xam ne ci say doomi bokk fa la bàyyi ko ci say sët fala bay ko yoo xam ne yaa leen teg ci yoon te la an yahdiya allahu bika rajulan wahidan xayrun min umrin min xumri naam boo fexee ba yàlla gindi kenn ci yow kenn kenn rek yàlla gindi ko ci sa sabab moo gën jàmm moo gën àdduna ak li ci biiram kooku ñaata la ci def man damay wax ne sama daara moo ma ko sampal samp naa daara ci wetam mu yëg ko jël njabootam indil ma jëm njaboot jël njabooti ay xaritam ay bokkam ñu bari indil ma taw xuma ci dara gannaaw ga laay toog ak nit mu ne ma man yàlla dogal na sama njaboot bu fi ñëw diw moo tax Alaaji Aliou Sakho moomoon noonu léegi am na ku ma ko wax moomoon noonu sa njaboot yët ko Mamour Dramé te rëccuuma ko kon mën naa wax ne moo ñu sampal sunu daara fii biñ ñëwee tumuraanke fi lool dugg ci kër goo xam ne xamuñ fa kenn du benn taalibe ne damay jàngale jékki-jékki taalibe yi ñëw te léeg-léeg mu jaaraan fa sànni fa ñaan ñun mënuñ koo fay moo tax bis bi fu ñu mënoon a fekk te mën cee ñëw duñ tagambaalu dañuy ñëw moo tax ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla yokk leeram xam naa ne moos te te tatajafa junubuhum anil madaaji'i yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaan wa naa mimma razaqnaahum yunfiquun loolu ca la nekkoon bu gudd jotee mu sori lalam lu may def di jaamu yàlla te kurusam di ñaan yàlla lu tax mu koy ñaan ragal na yàlla ragal na yàlla waaye tamit yaakaar na ko boo boolee yàlla yaakaar ak ak ak ak ragal loolu mooy mooy mooy mooy mun dëgg dëgg dëgg dëgg dafa am ku mu seeti ci saxaabaam dafa feebar ñu ko ko mu jóg ñëw bi mu ñëwee gis ko ne ko noo gisee sa bopp mu ne ko man maa ngi ci diggante yaakaar ak ragal mu ne ko bu ci jógee xaakasaa nekkal ci comme noonu rek bañ ci jógee jaam warul naagu ci yërmaande yàlla innahu la yayasu min rawxillah su nga ko kon yërmaande yàlla kenn du ci naagu lu dul ku nammate xee bi koo xam dafa weddi yàlla yal ci yàlla bu sax musal ku weddi yàlla rek mooy naagu ci yërmande yàlla waaye dégg bul naagu waaye bul ragal rek nag yàlla soxorul yént bi sax daf ne yasiru wala tu asiru wa bashiru wala tu nafiru waaw boo ci boolee yi ñu ci boole nag boo ci boole yi ci sëriñ bi boole woon alaaji Aliou di jàng alxuraan guddeeg bëccëg yor kurusam di tudd yàlla guddeeg bëccëg ah di wax lu baax du def lu baax di jubal ay nit kooku ku demul aljanna kan mooy dem aljanna hmm? kuy dem kon mu ngoog lii yëpp yokkal ko daraja rek la yokkal ko maqaama rek la yokkal ko ay maratib rek la yal na sax nag te nii ngeen ko defee nii mu simple nii amul benn folklore amul benn sorxole amul dara lu mooy yàllay kese ñu jàng ko fi waxtaan ci moom fàttaliku nit ñi ñu mën koo roy ah loolu rek mooy mbir mi laneen laneen bokk ci lii rek nañ ci sax comme nii waaw di ko fàttaliku di ko roy laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana mu ngoog cépp ku yaakaar ëllëg yawmal xiyaam ku fa am ku ku yaakaar yàlla yaakaar fa ca yow bis boobule royal muhammad muhammad nag buñ ko gisul xam na ñu ko roy ba miin ko ba jël jikkoom ñu ngi ci seen wet ñun ñàkkuñu roy kon nañ roy ci mag ñi ti téye fañ tiye woon addu alayha bin nawaajis matt ba mu dëgër ñu continuer texe rek bu ëllëgee fu ñu dugg ñu dugg fa walladina amanu wattabaathum zurriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim suriyatihim wa ma alatnahu min amali min shay ñi fi nekk gëm yàlla di jaamu yàlla di topp yàlla ba xëy màggat ca dem ba yàlla jël jël leen ci loolu bu ëllëgee fu ñu àgg seeni doom seeni njaboot dañ fa àgg parce que jaarale woon nañ leen yoon wa donte liggéey bañ doon digg liggéey ñoom amuñu kàttan boobu waaye bu ëllëgee fu ñu dugg yàlla dugal leen fa ñooy bokk aljanna abshir fa innaka maa te ahbabta yawmal xiyaama benn waaye dafa ñëw ci yonent bi di jooy ne ko man de dama laa bëgg lool te wax dëgg yàlla ma jaaxle ndax bu ma sañoon bu ëllëgee yawmal xiyaam foo nekk fa laa nekk ma dala xool da bànneexu ci xool gi da la gis da lool moom mooy sama bëgg-bëgg ndax la mu ne ko dama laa bëgg lool moo ko waral yent bi ne ko ab abshir fa innaka maa man ab sa ahbabta yowmal xiyaam bégal te xam ne bu ëllëgee yàgg nga sopp yéenay bokk benn place nit ki nag mënoo koo miin xam jikkoom xam xam wilaayaam xam xam fa tabarakallaahu mbaa ak ay manaqibam yëpp nga xam ko mu nekk sa xol ëllëg ngay wuteeg moom place kon na xel dal bu ëllëgee aljana la jëm ci suñu njort lu rafet ci sunu yaakaar ju dëgër ñun ñëpp fa lañ koy fekk ci kàttanu yàlla salaamualeykum wa rahmatulah ngeen baal ñu àq <coughs> nee na moom Mouhamed Darame bay alaaji Alioune Sakho ñett yi ñett yi moom ci la daan jàppee nit. bu fekkee ne yow gis na la nga nangoo jàng alquran da julli waxtu juróom yi da liggéey kenn mënatu bonal ci kanamam waaw noonu noonu moom nu góor gi noonu la meloon kenn mënatu laa balag waaw ngay julli mu ngoog wallaahi alhamdulilahi rabbil alamin aha dëgg la dëgg la alhamdulilah jërëjëf jërëjëf barakallaahu yal na yàlla fayal ñu ko yàlla mu ne loolu ak sant la mu ne ndax lim fi bawaan ba léegi dafa yokk waaye wàññeekuwut ci ci ci ay ci ñëpp ay doomam lañ ci loolu buy am ay doomam lañ ndax lam leen santoon ci jaamu yàlla nangoo liggéey nangoo jàng nangoo jàngale ci loolu lañu sax ba léegi ndax ajuma ju jot danañu fi dajee def xadara xadara lu am solo la te góor gi it moo leen ko baye woon ba mu leen ko bayee ba léegi da bàyyi huñu ko fu ñu toll ñu ngi ci rek de continuer rek waaye dellu luñ ko gannaaw mu ne oustaz Mahmoud wax ji nga wax doy na sant yàlla ndax boo ne jàng ak jàngale ak liggéey ak yar ak njabootam ci la loolu ci la saxoon ndax loole ku ci sax am nga yaakaar ajana mu ne yaakaar ajana nag mu ngi ci jëf mu ngi ci jëf jëf mooy tax nit de yaakaar ajana mu ne mu ne loolu mu ngi ci sant bu baax a baax a baax mu ne ustaas mi ba tey ñu ngi lay sant di la gërëm ndax am nga orma am nga orma kat ndax bi fi góor gi bayee ba léegi lislaam ji nga nekke woon ak moom wàññiwuloo ko fa nga ko yokk ndax képp ku fi dikk yow la fi fekk li mu fi war a dox yaa koy dox liñ fi war a wax yaa koy wax te itam yaa ngi taxaw ci njaboot gi di leen digal lu baax di leen digal lu baax mu ne loolu moo tax ma ne am nga orma ñu ngi lay sant di la gërëm mun taxaa saaxo nag yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na yàlla may ko fan wu gudd yàlla na barke ndaxte ndax lim jàng xatmu gim jàng fii tey ni mu ko jàngee rafet na de wallaahi rafet na loolu rek mën naay tax mbooloo mi fi teew yëpp yàlla dugal leen xajana kon mun taxaa doom jëri jëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm mu ne aji dem ji nag na ko yàlla jéggal yàlla may ko yërmande yàlla nañ ko fekk na ca bokk ko moom ak képp ku ko jaale ak képp ku ko ñaanal mu nekk ah yokk ñaan rek de waaye xam nañ ne moom ñaanam nangu na parce ndaxte alquran moo fi nekk ba léegi ndax jaara jàng na le bët ba sëñ ñi jàng alquran yaaka kon yaakaar na ne alquran fi la dëkk ndax yaakaar na ne kon alquran fi la dëkk te borom loolu la bëggoon kat te te am na ko kon kon nag sant yàlla rek moo war mu ne sant nañ gañ ñi sant nañ dëkkandoor yi sant nañ jigéen ñi sant nañ mag ñi sant nañ ndaw ñi hmm. yàlla na yàlla fay leen salaamaaleykum wa rahmatullah waxfir lana rabbi yowma albaasu fi sumori min allakabiriya baayisu yàlla waxfir lana rabbi yowma albaasu fi sumori min allakabiriya باعث يلا نحن ضيوفي وأحبابي لا صمدي أنزل مقامات يا باعث يلا صل وسلم عليه سرمدا أبدا ولا لواصحبيا باعث يلا بسم الله salaamaaleykum wa rahmatullah belaaji moomin nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mu ne bala ñëw sori maamu ma waroon dem mu ne waroon nga toog tuuti im baa ngay dem waaw mu ne day jàpp mu ne li tax mu wax loolu léegi baa ñoo dugg ci waxtaan wi ñu bokk wax alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin mu ne nañ jàng benn fatiha ñu jàng benn ayatul kursi yu fukki lixlaas ak benn ñu yeesal ñaan yi ki tax ñi dajoo fii ci boppam comme ni mu ko defee moom ak aki bopp aki bokkam nee na yal yàlla jotal yool bi Seydina Aliou Sakho aki bokkam mu ne gannaaw bu loolu woyee ñu ngi nuyu képp kuy toog bokk yi fi dajee ñiñ ci xam ñiñ fi xam ak ñiñ fi xamut ñëpp ñu ngi sant yàlla di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu jël nuyoo bi jokk nijaayam Omar mi toog nga xam ne tey mooy kilifa ku toog fii kon ku fi nekk rek yóbbaale na la mu ne wax ji du bari nee na waxtu wi dafa jot si mu ne xalifa muntaxaa ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di yokku sant di la wax ne kii ngeen di ñaanal. lii ngeen defal ko. dafagu leen dara ci moom. lu ko ëpp fuuf. mu ngi fi moom. ndax kenn la woon. ci ñi yàlla tegaloon jaam ñi. mu ne nee nag. nit ñi nag. lépp. xàmmee. duñ ca day yegg. mu ne waaye seen baay am na fu ko yàlla affecté woon boole kook boole kook kabiir bu mag kabiir bu mag boo xam ne kum teg barab foog nga ne fa kooku mu ne kooku moom ngeen toogal fii tey loo xam ne rijaalu laay amoon na ko xam ne rijaalu laay amoon na ko seen baayam ko dëxañoon ci këram kër gi lu ne mën na fi am mu ne ndaxte. ñu bëri. ñu bëri. wàcc nañ. wàcc nañ file. ak seen i maqaama. def fi dara. ba ko fi. li ñu am du loolu duñ ko buub. mu ne bas ba ba jot. noo koy bale yóbbu. kon mu ngi fi. ku fi sàkku dara. jaara dikk fii. dugg ci ruq bii. wax la ngay wax. dem. incha allahu rabbi yàlla dana fay soxla boobu. bokkoon na ci mu ne sa baay bokkoon na ji ñolle. ki ko defaroon. ki ko defaroon. kum defar ñu xam. kum defar ñu xam la. waaye boobu sax. ma ne boobu doomin sax. mu ne boobu doomin sax. bëggu caa dugg. waaye daal. waaye daal. kii. kii. lu ngeen ko defal. lu ngeen ko defal. mënu leen koo fay. mënu leen koo fay. dafa amoon ko góor. dafa amoon genn góor muy ñaax doom yi ne leen man de kaang laa foore laa jarga laa imaam laa borom dëkk laa ñu dem a dem ba yàgg ñu dem ba yàgg am ci doom yi ci doom yi ku takk ne jot na góor gi ku takk ne jot na góor gi mu ne ko bàyyi la nga waxoon man fi ne yegg naa ca de li ma lim ba yeggal ko des na de. mu ne ko des na de. mu ne ko lum des. mu ne ko lum des. mu xaaral. mu ne doom ja mel ni ji maam. ba xaaral ba am mel ni ji maam. booba ngay yeggal. waaye yéen nag. waaye yéen nag. Ah, eh, mu ne Seydi Lu Wujood sallallahu alayhi wa sallam yow xam nga ci dara. fañ ko yónni. yàlla ne dootuma yónnee. yàlla ne dootuma yónnee. ndax bu waxoon dootuma xam le mu ne yàlla waxut dootuma le de bu ko waxoon mu ne bu ko waxoon lu mu leen yónni duñ ko xam ba tey te ba tey ni naan ba mandi ba takk ne mooma hmm? mu ne mu ngi de téere bi kañ la mu ne téere alquranul karim kañ la wàcc te mu mel ni tey jii lay waxat mu mel ni tey jii lay waxat yooyu ne dara jógewu fi. mu ne dara jógewu fi. li fi nekk li fi nekk. mu ngi ci nangoo jëfee rek. gannaaw xàmmee nga. gannaaw xàmmee nga. bu gannaaw bu xam-xamee. jëfee rek. yàlla nangoo jëf lay fay. yàlla nangoo jëf lay fay. ku ci jàpp soow la. te jëf nangoo lay defal dara. nga koy ba mu dem. waaye ki nangoo jëf. waaye nangoo jëf. fay rek. kii nag yàlla dana ko fay. mu ne kii yàlla dana ko fay de. ndax jëfal na yàlla. xalifatul muntaxaa dina ko fay. xalifatul muntaxaa dina ko fay. ndax am na fu mu jaar. ndax am na fu mu jaar jëfal na ko. ñi fi desit jëfal na leen. akaabir bi nga xam ne. akaabir bi nga xam ne. moo doon nampal ñëpp. moo doon nampal ñëpp. nampal na ko muy Cheikh Sida Jomar. ba gërëm ko. ndax bokk na ci. mu ne Cheikh Jomar bokk ci. bokk na ci. alaaji bokk na ci. ñi nga xam ne. ñi nga xam ne. njëkkoon bokk. njëkkoon nañoo bokk. jàppale. ci ñi koy jàppale. alaaji Omar Ndaw. lu tax. mu ne lu tax. borom wilaaya du man. borom wilaaya du mën. koy mënal fañ koy mënal. te boo seetloo. te boo seetloo. njëlbeen ak taalibe. njëlbeen ak taalibe. njëkkee néew doole mujjee wéer mooy taalibe rek. mu ne njëkkee néew doole mujjee di mooy taalibe rek. bu xëyee. bu xëyee fees dellit bëggatu ca dara mënatu ca dara mënu koo lekk mënatu da naan mënatu da sol mënatu xamatu ca soxla. waaye ba mu jaay am soxla nag. waaye ba mu jaay am soxla mënu dara. Kole nag ba muy tollu foofu. mu ne sa baay ba muy tollu foolee. ba sëñ bee toll ci dimbale. ba sëñ bee ci dimbale. sa baay fa bokkoon ci ñi koy dimbale. koo xam ne nag bu la xoolee nga matal. koo xam ne bu moom bu la sa mbir mat. nga da fajal soxla. nga da ko fajal soxla. xam nga ne danga nga xam dara de waay. da ngay wax ne. ñàngoor ñàngoor. kum ne déedéet. buñ la lugut. nga am par de. ko kum riisu ñu ñu bokk góorgóorlu. mu ne ngeen bokk góorgóorlu. maam Badiane. Eh, mu ne taxawaay bi. nii nga ko. nii ngeen defee ko. say rak. ak say rak. bu leen ko baax. mu ne bu leen ko baax. waaye naa ne it nag. am na yaakaar ci ne. du ko mën a baax. du ngeen ko mën a baax. ndax kenn ndax kenn ku ne. liñ def ci yow. liñ def ci yow. nga téye ko bëggoo mu rëcc la. bëggoo mu rëcc la. bëggoo mu rëcc doo ko baax. ñu ngi lay sant bu baax. mu ne ñu ngi lay sant bu baax. ci taxawaay bi ci taxawaay bi. taxawaay bokk gi yëpp. taxawaayu taalibe yi. fa ngeen a nekk taalibe nag. fa ngeen a nekk taalibe nag. te bu leen tong. te bu leen tong. tong ragal jël la. tong ragal jël la. ku xatar bi ko yegg suuf. nii laa mel. nii laa mel. ba tax yu bëri bëggoo cee dugg. ba ba tax yu bëri bëggoo cee dugg. bal bal tongloo sa bopp. bal tongloo sa bopp. sa maam xat dafa waxoon ne. mu ne sa maam xat dafa waxoon ne. Ah, alaaji laayin. alaaji laayin la waxoon ne ko. kër gi dafa mel ni. fa bëgg a soppeeku. mu ne ko kër gi de fa mel ni fa bëgg a soppeeku. ci ni ñi dafa ñëw. ci nit ñi dafa ñëw. mu ne ko waaw. baylaay ne ko waaw. mu ne ko. mu ne ko. xale ko du sébit nag. xale ko du sébit. maa ngi lay ne. lay xamal ne. nit du ëppi bokkam. na teg. na teg. mu foog fa jaay teg dara. mu baylaay yaakaar ne ma ba yaa ji jaay teg dara. moom mu jël kurusam. moom mu jël kurusam romb ko. yow nag yaa mu ne yéen nag yéen ngi ci loole yaa ngi ci loole mu ne yaa nga puso bi darabbu yal na yàlla dimbale yokk taxawaay bi bi ci njëkk mooy yal na wér am yal na wér am bu wér xamee bi ci topp li ngeen ngëp ci seen xol yi yàlla bu mu rëcc bi ci topp xam ne fay dem seen loxo. loo xam ne yàlla fa koy def war sagal nit. loolu fay naaw da dem rek. yal na yàlla may leen ngeen xaw ci. bi jaay seydil wujoot. loolu daal. neexemale waale kàddu yi fii. kon kontaan moo tax muy wax. Eh, mu ne Mahmoud mii toog. daa kontaan ci moom lool. ndax ci ay bokkam. Eh, mu ne nijaayam xaritam la lool. mu nekk mu nekkoon mbay. sëñ Ousmane. kër Samba Raxi. waaw Nasiru sama rakk foofu la nekk di jàng. mu ne bi mu tëree ak tey mën na juróomi at. bëgg na jaay jot. bëgg na jaay jot. waaye nanguwuñ ko koy jox. waaye nanguwuñ ko koy jox. ci moom. amagul bëgg ci moom daal bu nee. moom jaanam wàcce na moom xam rek la bëgg ci moom xam rek waaw mu ne kii am na taxawaay ci ñoom lool ci ay nijaayam te moom mu xam ko lool moom xañ na xàmmeewu ko nim mu ko xamee waaye na nijaayam xam na leen bu baax a baax alaaji daraame doomi ndeyam la sëñ Ousmane xarit la xaritam la lool da daan daan naa wax ci moom loo xam ne. bëggoon nit ñi daan ko di ko dégg. waaw maanaam dafa ëpp ci moom daal. waaye ci ak mbaaxam. daan na waxee noonee moom. waaw mu ne samp gi ne samp file. ak na nga yëngatoo ca daara jële. sa na ca sa loxo nekkee. moom xam na ko. yal na yàlla gën a dolli. yal na yàlla gën a dolli. mu ne adduna bi le. naka jekk naka jekk naka jekk naka jekk ki la xamle ñi la xamle ñoo koy dundal ni ku nekk jamono ngay jural doom ana bàyyi tey yaa fi nekk toog bu defatoon ci lim def ci yow ni kon du ngeen mën li ngeen mën waaye mu mel ni yàlla xamaloon ne ko jamono ngi ñëw am na lu ca war. nekk ci jamono. te nekk ci jamono. nekk ci jamono. nekk ci jamono. bokk ci jamono. te bokk ci jamono ja. moo gën nekk ci jamono. moo gën nekk ci jamono. te ne fa rek. te ne fa rek. yal nañ ci bokk. nañ ci jamono ji. yal nañ ci bokk. mu ngi sant di ñëpp di gërëm ñëpp. mu ngi sant di gërëm ñëpp. rafetlu nañ taxawaay bi bu baax a baax. rafet nañ ko lool. yàlla mi ko tàmbali. na ko samp bu ko sampee na ko nokkas bu mu dëgër yàlla bu ci dara yàqu yàlla bu ci dara yàqu la nga nekkee fële ñu ngi koy xool bu boo ñu gisul tim ñu ngi lay gis li ngay waxit ñu ngi koy déglu loolu sant yàlla la defar la ca ña ko dégg ña koy déglu dafay wax mu ne dégg ak dégglu ñu benn ki dégg ki dégg. mu ne kiy dégg. bokkul kiy déglu. de bokkul ak kiy déglu. kuy déglu. dana déglu li nga wax. dana li nga wax. ndax mu mën koo xam. ndax mu mën koy xam. kiy dégg nag. kiy dégg nag. am na ñu ne ci place bi. boo boo laajtee lu oustaz Mamoune wax. wala nga dem da ko nettali. wala nga dem da ko nettali. fu ñu ko doon waxee rek lay wax. te mu ngi toogoon ñu koy wax. ki di dégg nag. ki di dégg nag. ki di déglu lépp loo wax rek jàpp na ko moom. waaye bu ngeen demee yal na ngeen xam ñu leen di déglu. mu ne bu ngeen demee yal ngeen xam ñu leen di déglu. yal na yàlla dolli leen ñu leen di déglu. fañ leen fañ leen yónni. fañ leen yónni. te yónnante ngeen nekk. ca barab ba ngeen nekk. bu ngeen demee. bu leen noppi. da leen wax. mu ne li ngeen di wax lu baax laay doon. kan comme lu baax la nag da leen wax. da leen wax. tey dé kay déglu. dana jëriñu. ku dégg. dégg rek la ca am. waaw rek la. ndax nit moom. nit rek moom. li ngay wax. li ngay wax. bal foog ne. bal dana am koo xam ne. dana am koo xam ne. ni nga ko toll. ni nga ko toll. loo rek la ca loolu rek la ca am. wax moom ki la wax. mu ne wax moom ki la wax. ni nga ko toll rek. ni nga ko toll rek. ni mu toll ci yow rek. noonu ngay am ca wax ja yow. sant sant yàlla. mu ne mu ngi lay sant bu baax. mu ne waxtaan wi. neex na. mu ne ndax sax du waxtaan. xaala laahu. xaala rasulullahi. loolu yàlla rek la. waaw. mu ne loolu digle la. ndaw luñ la yónni. jamaano bu ne nag. jamaano bu ne yàlla da ko dencal ay nit. waaw da ko dencal ay nit. dara dara li fi tegoon dara jógu mu ne lii yàlla lim fi tegoon dara jógu fi. lépp a ngi fi. lépp mu ngi jamono bu ne. am na ñu ko yore. foo ne yàlla newu fa. foo ne yàlla nekku fa. yàlla yàlla nga fa yow yow la fa nekkalut. mu ne waaye foo ne yàlla ngi fi boo demee rek jëlee fa yàlla. waaw boo ne newu fi. fa la fa nekkalut waaye mu ngi fi yàlla seexluwut amul benn làkk bu yàlla seexlu wala bii moo ko moom yàlla seexluwut seexluwut de fu ne lay dugg nun nit mën a mel gannaaw dégloo déggoo làkk bi tim te yàlla ngi ci yow fa nga yàkk fa nga yàkkamtee saafanteeg moom te yàlla rek rasul lay tax ñu ngi sant di gërëm gune yi yal na yàlla def leen mag yàlla bu leen yàqu yàlla bu leen yàqule. yàlla bu leen yàqule. yàlla bu leen dara galang. la lu lépp lu bëgg a jaar seen digganteeg yàlla. yàlla na yàlla jaar seen digganteeg loolu le yàlla musal leen ci taxawaalu. ak sababu taxawaalu. yàlla na yàlla musal ci taxawaalu. ak sababu taxawaalu. yàlla musal ñu ci. pexem seytaane. yàlla musal ñu ci pexem seytaane. mu ne dégg na wala fi di wax ne fu mu seytaane fu mu xajul rek lay dugg mu ne d'accordut mu ne seytaane fu dugg dañ ko ubbil buntu dañ koy ubbil buntu waaye boo ko benn buntu du dugg waaw mu ne yàlla bu mu fi am buntu yàlla bu fi am buntu bi jaay Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a ngi ci liggéey yal na barke mu ne loxo bi yal na gën a barke yàlla làmmiñ wi yàlla na gën a am ijaaba ya ñaan gi yàlla na gën a agsi bi jaay Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ba barke bi maam wax sam jàngale nag dañ cay toll boo ja boo yeggee ci xamle wa ngay digle rek mu ne jàngale moom fañ cay toll waaye boo yeggee ci xamle da ngay digle rek boo yeggee ci xamle li nga bëgg ak li ngay gis doo ko mën a wax doo ko mën a fokk rek fokk rek. xam ku fa ne. faa nga xam ku fa ne. nekk ci nga nekk ci yàlla rek. Ah, waaw yàlla noon ah, la. yàlla bu yàlla na gën a jox boppam. yàlla nañu yàlla gën a jox boppam. bu yàlla bu ñu yàlla gàntal. lépp luñ ko laaj. yàlla na nangu. mu ne comme laajuñ ko lu dul boppam. yàlla nañ nangu rek. ak sangam bi yàlla nañu ko nangul. bi jaay Moustapha ngeen baal ko àq ah ngeen baal ko àq wasalaamaaleykum wa rahmatullah aosbillahi min alsheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim wa bi laaj nga ma góor goo xam ne gu mag la góoru yàlla gu mag gu yiw bu baax koo xam ne dundam man bokk naa si ñi nga xam ne dundam daf daf leen marqué lool ndax góor la goo xam ne ndeysaan foo ko fekk rek mu ngi jàng alquran alquran moom dafa dëkkaaloon ak moom ak lu mu jàng-jàng alquran su waxtu julli jotee mu teg kaam jukki ba dem julli ji su ñëwee continuer ak njàngam bu fekkee waxtu tàkkusaan la mu def wirdaam ba pare continuaat ak njàngam te amutoon ci njàng rek waaye tam ku ñemewoon liggéey la moom góor googu dafa daan liggéey yar ci njabootam ñu ñeme liggéey amut ci loolu lu muy liggéey war sax ba ca wax ci yàlla da jox da ko daan bokk ak da ci dimbale jaam yàlla yi kamtalaayu kàttanam kon daal loolu moom bokkoon na ci li ma marqué ci góor gi su suma relation ak góor gi daanaka su gunu yi la dajee la la commencé muy Mouhamadou Mountakha Sakho doom la ak Ousmane Sakho yàlla dafa nekkoo yàlla dafa dogaloon ma nekk seen yu de jàngale xam-xam ay xaleem ñëw fa bi ñëwee yàlla boole maa ak ñoom may jàngal xale yi benn bis ma jiyee ko Saalum ñëw fi maa ngi nekkoon géejawaay jamono boobu mu ànd ak suma benn xarit nag ñi dem euh, Zandaga ba demee Muntaxa mi laa fa dajet mu nuyu laxante ma ak góor gi foofu laa gisante moom foofu laa njëkk a xamante ak moom xamante gi nag doo continuer ba benn bis mu ne dafa soxla ku ko jàngaleel ci njabootam gi daal di mu wax ma ne sax ne su ma mënoon a am ku mel ne yoo de moom a gënal fekk en même temps man it maa nga soxloon fu ma jàngale góor gi ne ma kon léegi su nga ñëw ci kër ga loolu daal en làq bi nag foofu la commencé rahimahullah gannaaw ba góor gi dëddoo ba léegi na ma meloon ak njaboot gi teel a gën a raw jëflanteeg njaboot gi ci jàmm ju mat sëkk jàmm jañ seqoon ju raw moom lañ seq ama frontière si benn njabootam ku ci dajee rek ubbil nga ma sa kanam ñu def suñuy waxtaan pare soog a dem loolu nag moom moo ko yore woon njabootam ndax moom ku ñemewoon nit la ku bëggoon nit la ku xamoon it li ñuy wax mu daara daf daan mu daarante lool ak nit ñi euh, message message bi may lancé ndaw yi ak ñépp sax mën nañu jël ci moom ay message bi su njëkk mooy dëggu ku dëggu la te it bu jàppee mbir daf ko jàpp rek du ko gaaw a bàyyi gannaaw mbir mu nekkoon lu baax moom xawma sax si moom mbir ma ban moo jàpp kon ku dëgg la woon waaye itam ku bari woon yërmande ci nit la woon boo ñëwaan wax ko soxlaam dangaa ji karab gi mu fecce koo daal di ubbeekul demelax da da leer nañ ndëg bari yërmandeem wante it ku ñemewoon jaboot la waaye ku ragaloo ku ragaloon la ndax ñaare koo gis ñaare ñu ne dafa ubbeeku dafa bëgg njaboot day ragal fitna loolu daal moo naa ko sànni ci góor gi lu ma leen dénk rek mooy ñu gën a góorgóorlu xam ne dañ commencé bees ndax ñoom ñëpp lépp luñ mel rek nu ñu mënta mel rek seen papa la ñoom balaa ñoo xam ñooy kan ëllëg seen njaboot màgg bañ xam seen njaboot ëllëg nu mel kon daal góor gu tedd googu ñu ngi koy ñaanal yàlla dëkkale ko sa àjjana yu gën a kawe mu dëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saabaam te rafet na ci lool wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu masbillahi min seytaani rajim la hawla wala illa billahi al-aliyyil azim ma sant yàlla julli ci yonent bi sant samay ñaari way jur maa ngi nuyu ñëpp di jégalu ñëpp di balu àq ñëpp ah li ma laaj mun naa cee tontu sawar naa ci tontu ci ndax góor gi wax dëgg yàlla sama nijaay la mook sama yaay ñoo bokk baay am na lu ma xam ci moom ku yiw la woon ku bëggoon njaboot la ku ñeme njaboot la ku bëggoon mbokk la waaw jaamukatu yàlla la jànkatu alxuraan la taalibe Seex ak xan la doon taalibe Seydi Alaaji Omar Ndaw waaw soppoon kër Seydi Alaaji Omar Ndaw lool waaw xamante ak ñoom Seydi El Hadj Mountakha mi nga xam ne moo njëkk nekk xalifa Seydi El Hadj kooku moom moom daanaka ay doomi ndey lañu ku baax la woon li ma ci li ma mën a wax daal góor gi gaal ku baax la woon. waaw loolu am na lu ñu ci man a wax tuuti ndax moom kër Seydi El Hadj Omar Ndaw la jokkoon amante woon na ak këru diine yëpp na ndax moom fépp képp ku baax rek amante na ak yow. waaye nag kër Seydi El Hadji Ndaw fa la jokkoon waaw mu nekkoon muqaddam ci Seydi El Hadji Ndaw bu mag a mag bu ñépp xam bu ñëpp ràññewoon waaw ah, ca jamono ku daan dimbalante ak Seydi El Hadji Ndaw la bi mu làqoo mu laxasoog si El Hadji Muntaxa moom moom ba yàlla dogal lim dogal waaw ku ñemewoon njaboot la daal ku bëggoon mbokk la waaw suma diggante njabootam gi ndax relation wax dëgg yàlla euh, sant ci yàlla ndax dañ na bàyyi man ma ne nijaay mane yaay ñu ne bàjjan te suñu way jur yi yàlla fa leen boole oon ñu àndoon nekkoon benn amuñoon benn différence waaw daan deflante lu baax daan deflante lu baax loolu nag yàlla dogal na feeñ ci suma diggante ak njabootam gi wax dëgg yàlla am ak ñoom benn xaar ma yàlla jàmm laa am ci ñoom ak salaam saa bu ma fi bàyyee ko yàkkamte naa fee dellusiwaat pour lii nii barki démb alxames ci guddi la ma sirif saaxu oo wax ma ko ne ma seen yaay dañ koy defal ñaan samedi bu neexee yàlla ma ne ko ah loolu jàmp na de ba gannaaw suba la samedi mën ma waaw waaye nag dañoo bëgg fépp fu mbokk nekk boo mën a ñëw na nga ñëw ma ne ko bu neexee yàlla góor gi jaral na ma ko sama yaram yi dinaa ñëw incha allah yàlla dogal na nag mën naa ñëw ñëw naa waaw 2005 euh, defe naa ba ma jumal la cinq mois de août wala la 7 ci mois de août 2005 la génn jamono waaw ci waxtu waxtu waxtu bii la on sax boobu yàlla nawet baa ngi commencé. waaw léegi li may tàggatoo rek mooy sant yàlla gërëm yàlla di ñaanal nag boroom kër gi yàlla defal ko jàmm barab bi yàlla samp ko xaar ko xaar képp ku fi nekk dara jaal xuraan lépp loo xam daal nit a ko fay yootu ci lu neex yàlla te xam na kiiwu leen fi lu naqar yàlla kon daal li ñuy ñaan mooy yal yàlla saxal ko samp ko xaar ko xaar leen xaar képp ku fi nekk barki yonent bi maa ngi tudd Mame euh, euh, yàlla leeral kanamam barkeel ginnaawam yal nañ ko fekk ci barsàqu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam macha allah euh, bokk ci doomam yi mag fi mu toll ci mag ñi ndax yaakaar naa fi ne ci ay doomam benn kenn moom ma ci mag muy Fatoumata Sakho macha allah moo nekk Saalum waaye fii ci Ndakaaru ñun ñu fi nekk tey yàlla dogal na wala yàlla natt na ma ba nga xamante ni man maa ci gën a doon mag góor gi nag tey euh, li suñ liñ xam ci moom suñ ko buggee wax du duñ fi jógee sëñ bi yàlla dogal na moo ñu jur ci farata yàlla suñu si Mohamed euh, yar na ci islaam jàngal ñu alquran ndax man moo ma dalal alquran muy sama baay macha allah ba ma àgg ci amim saayin siin xaaf macha allah mu commencé di voyage jël ci daara ji beneen sëriñ daara mu ñuy jàngal macha allah ñu koy wax Jibril Diop moom la jëloon ci daara ji mu ñuy jàngal alxuraan ba macha allah ba li ñu yàlla jox ci alquran yépp ñu am ko ci. Eh, teewul ci biir loolu teewul mu ngi ci doon bàyyi xel ndax lu mu nekkoon ci liggéey daan voyagé dem ak ñëw yëpp saa su ne bu ñëwee fu ñu mënta yem rek macha allah danañu natt ñu tari ko lu ca jub mu mu gërëm ko lu ca jubul it macha allah mu jubbanti ko taxaw ci ba nga xamante ni tey suñ xam-xam ci suñu diina yàlla dogal na réeruñ ci alhamdulilahi rabil alamina ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax ndax biñ demee ba sori ci alxuraan ji dafa ñu ne da ngeen di boole euh, euh, téere yi maanaam njàngum fiqa ak njàngum alxuraan ndax carrière jigéen dafa yow dafa yàggul comme carrière góor ndax jigéen boo amee fukki at ak ñeent jëm kaw rek euh, jëkkër mën na koo ñëwal te balaa boo war na fekk ngeen xammee seen farata ak seeni i na xam ëllëg nu ngeen di nekkee ci seen i kër ak nu ngeen di yoree seen i njaboot ci diina macha allah kon yàlla dimbale na ko mu dimbale ñu ba nga xamante ni suñu farataak suñu sunna xammee nañ ko xam nañ alquran ci du dalee ci bàqara banaas macha allah alhamdulilah fu ñu neex mën nañu faa def mën nañ faa jàng mën nañu wàccee suñuy kaamil te loolu moo ko def suñu ñu ngi koy ñaanal yàlla fay ko loolu ci njaboot gi nag alhamdulilah euh, ñu ngi sant yàlla bu baax ci njaboot gi mu fi bàyyi euh, rakk yi mag yi xale yi jigéen ñi góor ñi tey ak yaay yeeg mbokk yi mu fi bàyyi yëpp yàlla def na ci ñoom yàlla def na ñu déggoo yàlla def nañu déggal ma macha allah euh, lu ma bëgg bëgg nañ ko lu ma bañ bañ nañ ko yaakaar naa sax su ma amee lu ma bañ sax du ma leen ko ñemee wax ndax lépp loo xamante ni neexul ma rek nam leen di naqaree moo ëpp man ni mu may naqaree ba tax na sama bànneex rek laa bëgg ñuy xam waaye bëgguma ñuy xam lu ma naqari macha allah loolu yàlla def na ko si njaboot gi te moom la. ci biir waxtaan wi fii ci ñaan gi ñu ko doon ñaanal ci kenn ci ñu doon mag ñi doon wax nee nañ góor gi de li ko jaaxal ci njabootam gi mooy juboo gi ñu juboo ak déggoo gi ñu déggoo ak lu mel ni ñun ñëpp ñu nekk ay kal macha allah comme doomu nijaay doomu bàjjen loolu déggoo moo koy waral kaf ree rek moo fi am loolu nag laa budda mënul ñàkk ndax moom moo ko liggéey ndax am na ay ñaan ay ka jàng ay lim ci ay yaasin yoo xamante ni góor gi da daan def muy ñu koy wax 40 yaasin yoo xamante ni bis bu nekkaan góor gi dana ko ñaar dana ko jàng bokkut loolu bokkut ak ay awraat yi mu daan def ak li mu daan jàng ci li mu alxuraan loolu mu ko bu mu ko daan jàng ak njabootam moo tax mu ko doon jàng dem na ba nga xamante ni moom bu voyagé waan sax bu tukki waan sax macha allah euh, xam ne taj bene maanaam xat na ba du ko mën a def sax daf ñuy woo séddale ñu ko ne ñu defal leen ma ñeent fukki yaasin yooyu ñu jàng ko ci kër gi. bu dikkaan ma ne ko bàyyi bàyyi waaw yaasin yi ñuy jàngaloo loolu moo tax. mu ne ma sama yaay parce que yaayam la ma tuddee woon ma bokk ci ñim gën a fonk macha allah defal ma lu ne nag mu ne ma sama yaay xam nga lu tax ma koy def loolu dara taxul ma koy def yéen yéen a tax ma koy def ndax ëllëg su ma fi jógee wala su ma fi nee it bëgguma dara tàqale leen te damaa bëgg fu ngeen tollu ngeen jub te juboo looloo tax ma koy def macha allah moo tax njaboot gi sant yàlla ba mu bëri jàmm rek moo fi mën a am moo amee saax wax na ko ki bëgg a jëriñu ci njaboot Naar bëgg a jëbadu jëriñ ci njabadu Baye Sakho mooy nga yéene leen jàmm bëggal leen jàmm waaye ñun ci suñ biir it nañ yéenante jàmm bëggal suñ bopp jàmm suñ bëggee mucc waaye suñ ko defut duñ mucc loolu rek mooy mooy moo ñu jëkk alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi ci yàlla na yokk yàlla nañ ko teewe ay déwén yu bari ci barke yonente bi sallallahu alayhi wasallam sant ngërëm ñeel na la salaamaaleykum Badiane Aïda Ndaw ah, la Uh-huh. maa seen baay doom yi ko doon wol lañ waaw. Ah, xanaa sant yàlla rek bu wéer a wéer a wéer jul ci bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant ñaari waajur wax dëgg yàlla góor gi moom kenn amul fayam góor ku baaxoon la macha allah ñeme njaboot waaw baax na ñeme na njaboot jàng noo la leen liggéeyloo na leen wax dëgg yàlla kenn amul fayam xanaa ñaanal ko yàlla fayal ko boppam. waaw gune yi nag xam nañ ci ñoom yaakaar wax dëgg yàlla ndax fa mu tegoon tànkam gune yi fa lañ teg seen tànk yi kon nag ñu ngi ñaan yàlla ci yàlla kàttama mbaaxam yal na yàlla mottalil seen i muraado yaa rabbi yàlla mën na ko yàlla na ko def yaa rabbi waaw ñun daal mënuñ la kontaan waaw lii da kontaan nañ ci bu baax daal waaw kontaan na ci li mun taxaa sax doxalee nit kontaan nañ ci bu baax a baax masha allah yal nañ ko yàgga man te yàgg koy defal yaa rabbi ci kàttanu yàlla mbaaxam ci barke yonent bi kontaan daal doo raw kontaan bëgg naa ci xale yi wax dëgg yàlla macha allah wallaay <laughs> taarkalla macha allah kontaan naa ci bu baax a baax yal na yàlla fay leen boppam gën ba ca kaw mu téye leen boppam yal nañ ko gétti far nag ca taas barkeem liggéey wala lu seen barkeem bàyyi yaa rabbi luñ man ren yal nañ man déwén lu ko ëpp tam ànd ak wér ak wér la ñu gunge njaboot bi bañ ñemee yaa rabbi waaw téye leen xen bi bañ xaattan ko def leen kem def leen kemal barke yàlla bu yaakaar yàqute yàlla bu yaakaar tas yaa rabbi yal na seen i muraado mat kontaan naa bu baax man de wax dëgg yàlla sama cër bi jox nañ ma ko ba mu man moom maay seen bàjjen de waaye nag wan ma nag yow mii suñ kilifa nga wax dëgg yàlla jox nañ ma cër bi de muy góor muy jigéen nag ñoom ñëpp nag waaw góor ak jigéen maa ndaw ma bàjjen lañ ma def jox nañ ma ko de wax dëgg yàlla maay seen bàjjen te jox nañ ma cër bi kon nag du def lu gërëm leen sant leen macha allah waaw loolu de laa ci xamoon lu may wax waaw kay jërëjëf <coughs> asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw yéen mbokki julli yëpp ñu ngi leen di nayu mbokk yi fi teew yëpp ñu ngi di nuyu ci bés bii nga xam ne moom la tuddee siyaara alaaji Abdu euh, alaaji Aliou Sakho waaw muy bis boo xam ne bis bu ñu kontaan la ndax góor gi nga xam ne muy euh, sëñ Aliou Sakho dañ koo xam ci lu bare bare bare <clears throat> te li ñu xam ci moom yëpp muy jaamu yàlla jaamu yàlla nañ ko bëggee sellal waaw ndax yàlla dafa ne doon muxlisina lahu diin na nangeen ma jaamu jaamu gu sell loolu ci la nekkoon jàpp tërixam bi nga xam ne mooy tërix seen ami tiijaan toujours dañ ci daan waxtaan man ak moom loolu lañ xam ci moom dañ naan toog marché di waxtaan ci tarix bi di waxtaan ci diina di waxtaan ci bi li ma xam ci moom nag mooy sellal gi ma wax la la ci diine ni mu ko sellalee ak ni mu ni mu toppatooyee taarix bi ba sellal ko noonu la toppatooyee liggéeyam dafa daan tukki di dem du bàyyi lamam ca xaalis bu demee moom lay jaay bu ñëwee denc ko ci dépôt bi day jaay ba mu jeex mu delluwaat jëndiwaat amut kenn ku mu yoral benn dërëm ci marché Sandaga amut moo ma ko wax man tàkkusaan lañ julli mu ne fii yor lu mu fi kenn benn dërëm nit ñee ma yoreel kay yor lu fi kenn benn dërëm loolu ba mu ko waxee ak bi muy gaañu benn la waaw loolu nag sell gi mu doon sellal moo tax yàlla defal ko tawfiix boobu njabootam yi amut kenn koo xam ne mokk loolu alxuraan fépp fu ñu place bu ñuy jàngi alxuraan yóbbu na fa njabootam ñu jàng alxuraan man man mii loolu ci moom laa ko royee ba ma commencé am njaboot laa roy góor gi ci joxe ko ñu jàng alxuraan gis naa ne leer rek moo nekk ci góor gi ndég alxuraan lam doon liggéey lu leew loolu moo nekk ci alxuraan moo nekk ci doom yi yi mu jur ba lépp lu ñu leen xamal ñu xam ko mu taxaam yi dañoo foogoon sax dafa xam leneen lu ñu ko defal fekk nag déedéet leer gi ne ci góor gi mooy ball ci doom yi loolu mooy xam-xam bi nekk ci njaboot gi ak jub di nekk ci njaboot gi ak e, dem liggéey bi nekk ci njaboot gi loolu la leen miinal liggéey jàng ba tey jii ba mu fi bàyyeekoo ñoom taxawaaluñ kenn ci dundam mën naa wax ne boobu daanaka un mois moo des dañoo toog di waxtaan mu ne ma su ma wóolare nga sama liggéey bi de dama ko jox gune yi Muntaxa laa jox Saalum jidda Ousmane ma jox ko place bi ni yor met séeri bi su lëg su voyagé bu ñëwee beneen yoon mun taxaa dem bitig bii bu joxee weer dépense bu beneen weer ñëwee beneen bitig bi joxe dépense loolu moo ma ko wax maamu ñoo toog man nag li ma yore ma bokk ko samay bokk booba la jënd otom boobu su tàkkusaan jotee mu julli ba pare ñëw toog foofu di wir waaw lim am mu bokk ko kii bokkam xale yi li ñuy liggéey ñu taxawal ci kër gi ak njaboot gu sew gi fere yëpp xale yee ko doon def ñaari biti yee ko doon def te loolu moom moo leen ko yaree moo tax bi fi jógee ko mu taxal li wax ne ne ñoom dañoo toppante góor gi moo leen mooñee noonu benn jafe-jafe amul seen diggante ñoom ñëpp benn loolu nag sellal gi mu doon la ko yàlla mayee tawfiix boobu waaw yal na yàlla gudda yal na yàlla jéggal ko yàlla eh, xare ko ajana yan ko yàlla jéggal yàlla ko xare ko ajana lépp lu mu di def su lu baax yal na dajeeg moom taalibe Alaaji Omar Ndaw la woon nag am na lu mu waxtaan ci Alaaji Omar lam njëkk siyaare ji mu ne ñaari saako saakoy dugub la dafa bayaam ñeenti saakoy dugub magam ne ko da ngay ñaari saako yi siyaare ji ko Alaaji Omar ah, magam ne ko yoo xamoo fii ma la jëmee yoo xamal ki xamuloo ko yóbbul ñaari saako yi mu ne mu dégg ndigal yóbbu saako yi mu ne se déwén ba bayee lam am pour tuddut ko sax waaye dama ne yóbbu naa juróom benn saako ci siyaara ba waaw pour won la la rek yokkute gi mu ci gisee mu ne noonu la ne ba mu jooy ko kër ña ñëw fii dakaar li mu doon jaay la tuuti la waaye dafa tono lool lu mu jaay rek am ci bénéfice muy gis ak yokkute ci su def muy defal sëriñam lépp lu mu defal sëriñam su ñëwee fii mu gis ak yokkute bu baax yokkute googu ci la ne ci la ne ci la ne ba nekk ba sëñ Muntaxa bu ñëwee ci këram lay dal sedd nañ ni këram gii nii palaasu la boo xam ne palaasu li jaaba la ndax sëñ Muntaxa fi la daan dal te kat moom jàpp ba si la fu mu fu mu dal mu ruus waaw ku ko yëgati mu ruus jógee na Amérique ba mu ñëwee fii néegam néeg ba Aliou la nekk ba mu ñëwee ñu tegal ko paan sotti de ci glace sotti ci ndox ba mu fees muy tànk di sotti ci yaram boobu yaramu tàng jër la ñaari xarmal la indiwaale xarmal yooyu la xoddoo làmbaayu benn bi waaw def fi li mu war a def ba dem daaru kon nag góor gi li ñu mën daal mooy ñaanal ko yàlla xare ko aljana aljana di gën a kooye muy el yi yin yal na ko yàlla dugal ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njaboot gi yëpp yàlla barkeel leen yal na yàlla barkeel yëpp ma salika ala lay bi asisi asubillahi mina sheytaani rajim naa ñëpp ziare leen macha allah maa ngi tudd soxna Thian Sakho di doom ci Seydina Alioune Sakho macha allah ah tabaarakallaahu ñu doon ko ñaanal takk tey suñu wayjur woowu nga xam ne macha allahu bis bu nekk rek euh, ñuy fàttaliku ci moom lépp loo xam ne ngëneel la macha allah mu nekkoon wayjur woo xam ne tabaarakallaahu dañ koy ñaanal yàlla yokkal ñu leeram taas ñu ci barkeem yeesal yërmandeem bi jaay rasulillah ndax wayjur la woon woo xam ne macha allah bëggoon na njabootam lool tabaarakallaahu teg njaboot gi yëpp ci yoon te du la dóor du la xas tabaarakallaahu du la jànne léppam sutura la koy waxtaane ak yow léppam ci foo ak kaf ak di def ngay gis la koy waxtaane yow mu nekkoon wayjur woo xam ne comme niñ ko waxee tey rek alxuraan rek macha allah moo doon moom alxuraan la woon moom ci boppam alxuraan la ndax lépp lu alxuraan digle mi ngi ci woon lépp lu alxuraan tere mu ngi ci woon te tam jamono bu nekk rek mu ngi jàng alxuraan mu ngi digle jàng alxuraan te mu ngi koy jàngale macha allah. kon daal ñun dañuy sant yàlla bu baax bi nga xamee ne yàlla jox nañu wayjur yi nga xam ne mooy Seex Seydi Alaaji Alioune Saaxo muy wayjur bu baax wayjur wu lewet waajur wu bëgg njaboot waajur wu ñeme njaboot waaye waajur woo xam ne bëgg yàlla bëgg euh, yonent bi sallallahu taala sallam bëgg cheikhu tidiane chérif bëgg sëriñam cheikh seydi alaaji omar radiallahu taala anu macha allah bëgg tamit ay mbokkam yépp nag nekkoon koo xam ne daal royukaay la côté boo jël rek mën nga ko ci roy macha allah lépp loo xam ne jox njabootam soxla na ko taxaw na ci lépp loo xam ne mbokkam soxla na ko tabaarakallaahu taxaw na ci nekkoon tamit ku joxoon kil euh, kilifteef maanaam maanaam joxoon cër kilifaam magam suñu baay alhaaji Modou Bousso Sakho ma nga xam ne ñoo bokkoon ndey ak baay macha allah mu jàppe woon ko sax comme baayam macha allah jëlutoon benn cër lépp mu bàyyi woon ko ko moom it tamit njabootam noonu lañ ko joxee cër bàyyi ba nga xam ne tabaarakalaa ñun daal sant nañ gërëm nañ te kontaan nañ tey jii tabaarakalaa ñu ngi ñaanal suñu xalifa alaaji góor gi saaxo suñu mag yàlla yàggal ko fi lool te may ko tawféex ndax ñun dañoo jàpp sax góor gi demut macha allah foog nañ ne Cheikh Seydou El Hadj Alioune Sakho demut ndax comme ñu ngi gis góor gis njàng Sakho ñu ngi gis Baye Omar Sakho mu ñu taxaw seen taxaw taxawaayam macha allah wuutu ko ci côté bu ne nag lépp loo xam ne mu nga ce woon rek bëggoon na ko ñu ngi ca waaye lépp loo xam ne bañoon na ko doon ko dàq rek ñu ngi koy dàq ci famille bi kon ñu ngi sant di ñaanal ñëpp tawféex di ñaan yàlla na yàlla dolli jàmm njub ak juboo mucc ak muccule kàttan ak kaaraange ak ndam defaru ci zaahir ak baatin yàlla na ko yàlla dolli ci famille bi salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd soxna Aminata Sakho macha allah doom ci Seydina Aliou Sakho mi ñu doon defal ñaan gi ak Seyda Mariama Dramé ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di sant bu baax a baax macha allah di am kontaante lool tey di wax ak xol bu sedd guy suñ kilifa gi nga xam ne ni tey moom lañ doon defal ñaan macha allah muy kilifa goo nga xam na nii dëgg yàlla waa jur bi nga xam ne desulul doom dara. ndax lépp lu mu warloog doom rek def na ko euh, yar nañu jàngaloon nañu teg nañu ci yoonu siraatal mustaqiim kenn ku nekk fam la war a dugal dugal la li ñu koy deseel daal mooy ñaan ñaanal ko yàlla fam nekk gënal ko fi mu bayee ko waaye di gërëm ñëpp di sant ñëpp famille bi yëpp tey ñëpp ñëw nañ mbokk gi ñëw nañ waa Saalum yi ñëw nañ xarit yi ñëw nañ soppee ñëw nañ ñëw ngir lan ngir jëmmi góor bu baax googu nga xam ne nii lépp lu ko nit seedeel rek lu dëgg la ndax liñ ko xamee mooy jullite jaamu yàlla gor nangoo liggéey macha allah yar njabootam lépp li nga xam ne mu ngi ko doon santaane rek moom moo ci jiitu njabootam lépp foo jotee moom rek addinaam yëpp daf ne liggéey ak jaamu yàlla la ak dundam yëpp loolu la ko def liggéey ak jaamu yàlla daf daal wax ne man fowuma foluma ànduma ak kuy fotam kon ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ko ñaanal yàlla di ñaan yàlla yàlla na yoo xam seen dugub yàlla na ko fa mu tëdd gënal fi mu fi mu bàyyeekoo yàlla na ko yàlla wanalee rasulullah soppeem ba ak Cheikh Max Tidiane ak Maulana Seydi El Hadji Omar Ndao mi nga xam ne ni macha allah moom la moom la moom la kii woon mu ngi ñaan yàlla yàlla seddal ay yaxam boole ko suñu waajur wa jigéen fa nekk ak mbooleem ñu fa fekk ak ñu ko fa fekk ci barke Yonent bi nuyu ñeen ñëpp ziar nañu asalaamaaleykum wa rahmatulah. auzu billaahi mina shaytaani rajiim. bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi uh, waa mbokk mi li ñuy laaj ci góor gi alxaaji Alioune Sakho uh, li ma ci wax mooy li ma waxoon rekk ci bi ñuy tàmbali ñaan gi wala bi ñuy tëj xatmu bi góor gi daal nit la koo xam ne ci alquran ci la juddu ci alquran it ci la nàmpu ci alquran ci lañ ko feral ci alquran ci la dund dundam bi yépp yaru ci alquran yar ci njabootam dee ci alquran yal na dekki ànd ak barke alquran ak yërmande alquran ba jannatul xilliyin aw jannatul firdawsi maha nabi sallallahu alayhi eh, li ma gën a yéem ci moom nit la koo xamante ne ni ku ko dàq jaamu yàlla man de xamuma ko ci wala shahid naa illaa bi ma xalim naa nit doo seede lu li nga xam ku ko gën a set ci laabu saahir ak baatin xawuma ko nit la koo xam ne ba lay dugg ci jaamu yàlla laab gi suñ borom subhaanahu wa taala santaane da koy def ci teey ak dàll ba yow loo wóolu wóolu wóolu di laab danga xam ne kii laab na ci buy jaamu yàlla it la jaamu yàlla laaj muy xàq yi jaamu yàlla laaj muy farata ya ak sunna ya ak mandóob ya ya ñu sopp dana ko def ba yow mi nga xam ne xam nga sax yooyu boo nekkee ci gannaawam dënku ci yéem noonu la góor gi meloon ah doon yàlla sédd ko nag mu doon commerçant mooy jaaykat waaye lépp loo xamante ne nii xam nga ko ci mbiram jaaykat moom foxoon na ba sàmmoxante ak moom loolu nag la la koy wéralal mooy commerçant bu toll ni moom de tukki di ànd ak ñu mel ni moom décharger ay conteneur di wàccee ci mosoo jëflante kenn ci bor ba nga xamante ne nii bi mu fiy jógee ay doomam wax nañ ne nana leen bay amee kenn bor man nit ñi ñoo ma ameel loolu mooy tegtale ne kon li nga xamante ne nii moom la yàlla santaane ci njënd ak njaay mu doon sàmmoxante ak moom li ma gën a yéem nag mooy may gi nga xamante ne nii yàlla may na ko ko walla ma tuddee ko sax ak fay ndax man maa nekk ci kër gi la ëpp ñaar fukki at yaakaar naa bu ma juumul maa ngi fi ñëwoon ba tey kon ñaar fukki at yi teg na waaye li ma gën a yéem ci lu ko yàlla may walla lu ko yàlla fayee ci yéem gi yëpp àndut ak wallaahi catu yàlla bu ma loor kenn ci sama làmmañ mooy njobootam njobootam yéem nañ ma ci tënku gi ñu tënku ci fa leen seen waajur tegoon dontu ne tënku ba mat nag yombul waaye man nit mi nekk ak ñoom de xam li ñuy dund nekkoon ak seen waajur de xam la mu doon dund man yéem na ma ci tënk gu ñu tënku ci la seen waajur bàyyi woon yéem na ma it ci ànd gu ñu ànd ak juboo gu ñu juboo ba léegi rek sëñ baa ngi koy wax ñoom boo duggee ci kër gi bokkoo fi xamoo fi mënoo xam ñu bokk ndey ak ñu bokk ndey muy góor ak jigéen dañoo mel ni ñoom ay doomi bàjjan lañ ak ay doomi nijaay naam xam na ci ndax boo ko seetloo ñoom ñëpp ay doomi bàjjan ak ay doomi nijaay la doon ndax ku mu ci ñoom danga naan sa yaay mën ngay wax ni sa bàjjanu morom la kon doomu nijaay ak doomi bàjjan am na ci waaye li ma cee teg daal mooy yàlla bu leen cat dab ba di leen gàllankoor ci li nga xamante ne ni seen baay yéene woon na ko ci ñoom mébét ko ci ñoom yaakaar ko ci ñoom yàlla na ko yàlla matal góor gi ak mbaaxam mënoo koy wax gis nga nim sàmmoxante woon ci commerce néew na commerçant buy sàmmoxante ak moom koo xam ne euro asaka bu jotaan wala bu jublu siyaan lim am yépp dana ko régler lu ci yàlla wax dana ko def loolu mën naa ko seede ndax lu bari lum daan joxe ci saalum dafa ma daan woo ma ñëw mu ne ma jëlal big ma jël big mu ne ma diw sàngam nàngam ma bind diw sàngam nàngam ma bind ba ñi muy jox ñépp asaka jeex ci saalum mu ne ma kalkineel ma kalkine ko mu ne nangam la mu yëkkati loola jox ma ne ma boo demee joxal ma diw sàngam nàngam joxal ma diw sàngam nàngam defal ma diw sàngam nàngam noonu la ko daan defee nam ko daan defee ca ca saalum nga mu dëkk noonu la ko daan defee ci biir dëkk bi loolu waa jàkka ji tey buñ ci teewoon mën nañ koy seede ndax am na góor gu fi ñëw ca suba ñu koy wax bay ndeene jóob lu bari ci moom moom la ko daan jaarale ne ko waa jàkka ji ñoo moom lii jàkka ji moo ñoo moom moo moom lii ci loolu sàmmoxante ak asaka moo taxoon mu def ko ku ku aju aji màkk lu bari it la def ku yóbbu it ay soxnaam yépp nag màkka loolu it baax ak yàlla la ak ak góor góorlum ak bëgg lu baaxam waxuma ay soxnaam rek waaye ay jigéenam sax am na ci ñum yóbbu màkk bi maanaa ay sëram am na ci ñoo xam ne moo leen yóbbu màkk loolu it ak baaxam la ak ak yaatum ndax loolu duxut farataam duxut sunnaam kanaa dañ koy yéegal ci yéegal ci ay muxsinaatam ay yu rafetam waaye nim dimbalee nit ñi ñuy dem màkka ni la dimbalee ñenn ñi ñi samp kër ni la dimbalee ñenn ñi ñi am soxna kon góor ga liñ saaxu liñ xam ci moom yëpp mënuñu koy wax waaye nit ku baax la xoon jullit xaqan la ku bëggoon mbokk la daan ko dox daan ko wax daan ko jëfe loolu it njobootam gi ñu ngi ko ci jéem a roy yàlla na leen ci yàlla dimbale li ñuy mujj a wax nga xam ne mënuñee wax lépp mooy njabootam gi ci kër gi yàlla na leen yàlla sàmm njaboot gi ci àll bi yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na yàlla gën a ubbi seen wasak yàlla na seen barke bàyyi sotteeku ci seen kaw yàlla na yàlla gën a dëppale seen xol yàlla nañ ko yàgg ñaanal yàgg koy saraxal yàlla na ko yàlla yërëm moom it jéggal ko fay ko jëfi yiwam barke alquraanu karim dëkkale ko yonant bi ak seex na tiijaan yi liñ bëgg a wax yépp mënuñu koy waxe waaye wax joo xamante ne nii boo ko doon wax ba faatu yow du jeex kon lu ci nit am doy na ñu ngi jéggalu ci kàddu yi bu ci amee loo xamante ne nii njuumte la ci jëmm ju xeebu ju matadi ci la bayee ko lu ci njib njub nag tawfiqil ilaahiya la yàlla moo ñu dimbale mu jubee noonu ñu ngi jéggalu ñëpp di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yàlla nañ ko yàgg ñaanal yàgg koy saraxal barke alquraanu karim allahumma salli ala sayyidina muhammadin bismillahi wa barakaatu maa ngi nuyu nuyu leen sant di ñaan jàmm di ñaan yàlla Seydina Aliou Sakho yàlla xare ko xajana yal na deere naf laayam nañ ko fekk xajana yee ko fay fekk njaboot gi fi bàyyi na ci yàlla def barke nañ ko sut fan jëw sagam ak barkeem ba góor gu baaxoon la bu ñëwee njaboot bu mën a teral jigéen nga mën a yar njaboot maa ngi koy ñaanal yàlla fa mu tëdd yan na ko fa yàlla yóbbu ci xajanaa firdawsi yàgg koy saraxal yàgg koy ñaanal ni gis ak barkeem yàlla wutu ko ci njabootam wutu ko ci dëkkandooram dara jaay yenant bi da sant njaboot gi nag gëm fi baax sant naa muy góor muy jigéen sant naa leen ne yàlla def leen magi barke barke seeni liggéey musal leen ci yàqu yàqule te leen ci gàtt fa ak deega ñaaw te leen ci lépp li la dara jaay yaar soolu la góor gu baax la woon gu mën a yore soxnaam mën a yar njabootam soo bokkee moom ay doom dara doo ko defal say doom lépp moo koy def waaw lépp moo koy defal ay doom xale yi moo leen yóbbu ñu jànga ak xale bu daalam dëggee moo koy jëndal daal moo koy xott liire lépp moo koy defal njabootam di ko sant rek di ko ñaan yàlla fa mu tëdd yal na ko fa yàlla yërëm fekk ko ca ne ko faay fekk ñu bokk ko moom yaa koy koy ñaanal njaboot gi fi ba yenn ci yaa teg loxo njaboot genn ci yaa def barke ñu sut ko fan jël basagam war war barkeem ba a wasagam wax luñ jéem yan lañ ko man bu ne tukki yàlla sàmm leen sàmm seen xalal barke seen liggéey ñu si jàmm fekk ci jàmm ñu si ja bëri ja law ja seen mbokk ci dara jaay yenante ñu ne fii di liggéey itam yan ne yàlla liggéey da leen magi barke musal leen ci yàqu yàqule gàtt fan ak deega ñaaw seen bàyyi fan dara jaay yenante bi jigéen ñi sëy yan na yàlla barke seen i sëy